lii gën a fës amee internet yu 24 actu ci internet bi tey ji naka ci altine ji du lenn lu dul mbas mi lëmbee mbim réew di covid 19 ñu gis ne naka kaaye naka ma ngay gën di yokku preuve bi mooy tey ji naka ci altine ji yamoo ko juróom-ñaari fan ci weerum décembre 2020 Sénégal naka daal ne def lu tolloo ko 1231 ci ay test ci biir 76 yooyu 31 cas contact lañ ci am ba am nañ ci un cas importé am ci 44 cas issus de la transmission communautaire ci gox ya nga xamante ni feeñ na ca bokk na ci Fann bel am na ci 6 cas Matam am ci cinq Ouest Foire am 5 Dakar Plateau 3 Ouakam 3 Cité Keur Damel 2 Guédiawaye 2 Mamel 2 Mermoz 2 Ngor 2 Pikine 2 Sicap Baobab 2 Almadies 1 Liberté 6 1 Patte d'Oie 1 Point E 1 Scat Urbam 1 Thiès 1 Tivaouane 1 am ci 1 30 patients yi ñu hospitalisé woon wér nañu am nañ 11 cas graves ci suñu service de réanimation Sénégal naka démb ci dimanche ji amaan na lu tollook ñaari dese bi mbas mi duggee ci réewum Sénégal ak léegi naka xayma bi mu ngi toll ci 16 553 cas moom la ñu daal di amee positif ci réew mi Euh, ci biir loolu 15806 wér nañ ci 340 ñàkk ci seen bakkan li ñuy saytu nag ci lali hôpital li mu ngi toll ci à 406 ministre bi rek diggandi ñaax askan wi ngi ñu sàmmonteeg mesure barrière yooye nga xamante ni kër docteur digle ne ko ngir xeex mbas mi mën a gaaw génne ci mim réew dañuy daal di deseen rek ci mbas mi ndax gis nañ ne yokkute gi mu am jamono ji doy na waar lool ba tax ki nga xamante ni moo di Antoine Félix Diome du ministre de l' intérieur daal dina génnewaat décret bu bees ngir li nga xamante ni moo di Euh, pour obligatoire du masque maanaam takku masque mi ndaxte gis nañ ne jàngoro ji dafa gën a law jamono ji ba tax rek ki nga xamante ni moo di Antoine joxe na ndigal ngir ñu takkaat masque yi comme nañ ko daan defee gën a jàppanteeg moom bu baax a baax ngir nag xeex bi daal di gaaw génn ci mim réew ndaxte gis nañ ne jàngoro ji mi ngi gën di law ak jamono ji ñu daal di wéyandi wax ci ki nga xamante ni naka moo di Moustapha Cissé Lo ginnaaw jàppanteeg bi nga xamante ni amoon na ko ak ki di Yaxa Mbaye ci ay wax yu jéggi dayoo ba tax rekk ki nga xamante ni moo di Moustapha Cissé Lo génne woon nañ ko li nga xamante ni moo di parti APR ñu gis ne nag ki nga xamante ni moo di njiitum réewum Sénégal di Macky Sall daf ko daal di invité démb ca këram ge di Mermoz ñu daal fay gisante daal di fay tamit waxtaan mu sukkandikoo rek ci laas Moustapha Diakhaté mi nga xamante ni moom it bokkoon na woon ci parti bi te teewul moom tamit dañ ko génn woon gis nañ ki nga xamante nii nag moo di Macky Sall daal dina koy defal ab invitation ndax dana ca demam déet loole ab question la te Moustapha Diakhaté moo ci war a daal di dontu lépp loo xamante ni ruusaan na ci rek dinañ leen ci dikkal suñu na a jotaayu xibaar. ñu woy ni daal di wax ci centre de redressement bu Serigne Modou Kara bi ndax gis nañ ne jamono ji nag jur na coow lool ba ki nga xamante moo di Pape Samba Mboup moo daal di yëkkati nag ay kàddu yu doy waar daal di koy dénk ñi nga xamante moom Pape Samba Mboup nag la mu xamle moo di dafa amoon ñaari jarbaatam yoo xamante ni dañ doon tux li nga xamante ni moo di yàmba ci noonee naka la daal di gisanteeg ki nga xamante ni moo di Serigne Modou Kara daal di ci waxtaan ak moom mu xamal ko ne ko moom am na benn centre boo xamante ne nii dafay traité ñi nga xamante xamante ni mooy def lu ni mel ci noonee nag la moo Modou Kara daal di yónnee nag ay xale yu góor ñu daal di ñëw jël si ñaari xalem yooyee nga xamante ni moo di jarbaatu ah, Pape Samba Mboup yi ba tey ci kàddu yi Pape Samba nee na ñooñee ba ñuy ñëw dañoo solo comme ay commando daal di ñëw nag jël si ñaari jarbaatam yooyu lee moom Pape Samba daal na leen di joxaale ab matelas daal leen di jox téléviseur ak benn chaîne musique ngir jox leen ko ngir yóbbaale tamit ñaari jarbaatam yooyu ci noonee nag la toog rek benn temps daal dem seeti leen centre ba waaye daf leen a fekk rek ñuy daal di tux li nga xamante ni moo di yàmba ca biir centre ba ci noonee naka la daal di décider génne fa ñaari jarbaatam yooyee immédiatement waaye naka yamu ki nga xamante ni moo di Serigne Modou moo yëkkati nag yooyu kàddu di xamle ne centre de redressement boobule moom amu ca mbégte lu dul mbetteel la ci am ci ñaari jarbaatam yooyee ndax dafa yokk loolee nga xamante ni nii doon nañ ko def tam bëggoon rek ñu daal di cay génn ba seet wecci ñu daal di woye ni wax ci ki nga xamante ni moo di Lamine Ndiaye Lamine Ndiaye nag ku ne xam na ko ci milieu théâtral bi moom nag dafa daal di yëkkati nag ay jëmee ko ci série yu bees yi ak façon bi nga xamante ni ñi ngi koy doxalee ci waxin yi ak solin gu jéggi dayo yi moom Lamine Ndiaye nag xam la na ne bëgg jaay sa produit warul tax rek ngay solo noo xamante ni dafay doy waar ak di wax wax yoo xamante ni tamit dafay doy waar ndaxte jàngale moom moo tax ñuy théâtre ndaxte boo dee théâtre da nga war a joxe li nga xamante ni moo di leçon waaye boo demee ba li nga xamante ni mooy suñuy valeur dañ ko commencé di ñàkk di indi yeneen valeur yoo xamante ni naka bokk ci ñun mu di yeneen i culture day tax naka ñu taxaw def ab taxaw seetlu ci milieu bi nga xamante ni nekk dañ ko te mu di milieu théâtral bi moo tax rek moom mi ngi ñaax ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci wàllu woowu ñu xoolaat ni nga xamante ni ñu ngi koy doxee ak ni nga xamante noonu la solo ngir ñu mën a gën a jàngal suñu xale ñu mën a gën a nag valoriser li nga xamante ni moo di à suñu culture ñu daal di wéy ni ba tey wax ci ki nga xamante ni moo di moo géet di milliardaire boobule daal di nay yëkkati nag ay kàddu ci benn entretien boo xamante ni defoon na ko ak waa l'observateur lam xam la rek ci biir ba moo di xaalisam bi nga xamante ni moom moo ko amee dékku ci lenn lu dul di jàppale ñi nga xamante ni moo ñu ko soxla ndaxte nee na moom xaalisam boobu demul di ko jox ñi nga xamante ni moo di ay ay namibien wala ay guinéen ay sénégalais la koy jox ndax xam na ne ñoom ñoom la dëkkal tey ñoom i tamit ñoo di ay mbokkam te nag li nga xamante ni moo xaw a ci ni nga xamante te nit ñi noonu lay joxee xaalisam mu di sànni bi mu koy sànni nit ñi di ko bale nee na moom loolu jubluwu ci dara lu dul loo xamante ni fën la ak di ci foo ak di ci reetaan kese la ci nam waaye namu ci leneen ki nga xamante ni moo yëkkati nag yooyu le kàddu moo di milliardaire boobu le at yi mu gétt ñu daal di koy jeexalee ki nga xamante ni moo di Khadija Ndiaye nekk doom ci ki nga xamante ni moo di Aïda Patra ex animatrice de 2 yi nag moom nag moo daal di génn nag ak tenue bu day waar tenue boo xam dafa sexy loolu moom Khadija duñ def leen rek lu dul bàyyi leen rek ngeen commentaire ko yéen mbokk internet yi lii rek moo fi gënoon a fës amee internet yi dig daje rek lañ leen di jox ba ëllëg ak jàmm